بحرين أوزارا لا تقبر بما ليس المقدرات ولا تخائب راجا ما فيك يا الله

هدينا للجنة خليل ما الهاسر يا الله عليه إزال لم دائما أبادا ومن قفوا عليه مدين يا الله عليه سلام وسل لم دائما أبدا ومن قف ليوم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziaraat bu baax di ziar mboolem fu waay mën a ci jamono ji rek ci àdduna yëpp rek bawunu kenn ñu ngi ziar ñëpp tey yëkkati ay kàddu yoo xam ne ñu ngi ko yëkkati ci turu jëwrinu daara ji muy sëriñ Lamb Fall moom maam Saliou Fall Fatou Sow ak mbooleem waa daayira jëf-jël ànd liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ci barab bi liggéey bi nag ñu ngi ko tàmbali ci weer yu néew ginnaaw si bi ñu tàmbalee liggéey bi ñu ngi ko doon doxal tijji woon benn groupe WhatsApp groupe WhatsApp boobu di dox ñu tërale euh, tëralin wi ci talaata ju nekk lépp loo xamante ni si waaye mën na koo jaayante maanaam ci téeméer ba ci million daara ji xeebu ko nga jaayante ko loolu mooy li nga xam ni foofu la ñu tàmbalee bu ñu jugee ci talaata ji def weer wu ne le cinq ba le dix képp koo xamante ni si am nga looy jaayante nga jaayante ko moom it tënkuñu ko ci ñaata lay doon waaye dañ koo tënk ci rek ni ngir mu woyof ci ñëpp ba ñëpp mën a bokk si ci daara ji ñëpp tamit man ko ñu tënk ko ci téeméer ba million kon loolu liggéeyal fa Cheikh Ibra jàpp naa ni yomb na jafewul daara ji nag maanaam ku ci bëgg a bokk ci daara bi dafa am sart yoo xam dañ koo tëral sart bi nag mooy da ngay jënd carte de membre ci ñeenti téeméer 2000 francs boo jëndee carte de membre nañ la tàbbal ci biir daara ji nga bokk ci liggéey bi comme ni ma ko waxee rek liggéey bi newul liggéey boo xam ne daa diis ba kenn mënu ko waaye nekkul tamit liggéey boo xam ne dafa woyof ndax liggéey Cheikh Ibrahima bu ci woyof newu ci waaw moo tax ñu tërale ko noonu mooy jaayante téeméer ba waay man ngir bëgg rek ñëpp jàppandi man cee bokk waaw daala ji nag ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn yaakaar naa ne su ma juumul def nañ ci ay vidéo yu bari lancé nañ ko fu ne ci internet bi xëy na ñenn ñi jot nañ ci ñenn ñi jotaguñ ci waaye képp koo xam tamit jotagoo ci boo ci jotee rek nga xam ni waa daara ji ñu ngi lay eh, woo ci liggéeyu Cheikh Ibra Fall bii nga xam ni simu nañ ko te kenn ku ne xam na ni kat yoon yi fii mu toll nii kër Cheikh Ibra dafa soxla mbooloo mu mel ni daayira jëf jël euh, xanaa naaj cité mbooloo mu mel ni alali Cheikh ra nga xam ne léegi daa yematul lekk ci këri Seex Ibra Faal yi waaye dafa am yeneen mbooloo yoo xam ne dañ koo war di waat ngir gën a mën a yaatal liggéeyal Seex Ibra Faal bi mbooloom jëf jël mii nag ci la bokk tàmbali nañ liggéey bi te ñu ngi woo ñëpp ñu woo ñëpp liggéey bi nag dañ koo tàmbalee woon ci ay parfum ngir dañoo gis ni barabu Seex ra parfum yi yell na fa ñu tàmbalee woon ko ci te it Sëriñ Masamba Fall borom ngaaj yàlla na nu ko yàlla fayal mu newoon ab liggéeyam mi mu fi jugee it mu bàyyi ko njabootam gii maam làmp ne sa bopp ba kon loolu ñu koy wéele di ci dem waaye nag bi nga xam ne dajale nañ sunuy sa ñaar fukk ak sunuy kii ba mu xaw am lu mu mat ci lu néew waaye nag mu ñu xalaat ni comme que barabu Cheikh Ibra la te it Cheikh Ibrahima Fall kat dafa liggéeyal Sëñ Tuubaa jox ko li gën ba moom li ñuy dugal ci barabam lépp sax soxlawu ko dañ koy ko yëkkatiwaat di ko joxaat Sëñ Tuubaa kon moom jël yell na ñun ñu jëfal ko waaye ñu xalaat ne parfum yi ñu fay def bu mu doon parfum yii nga xam ne dañ koy jënd nii rek wala mu kii ndax kat man mii di wax ak yéen jëndi naa sikki Guerlain un litre boobu jëndee naa ko daanaka ay quatre-vingt et quelques mille àggu fa waaye biñ ñu leeralee sikki Guerlain bu baax a baax a baax ñu dem ba France yónnee ko fa dajale sunu àddee jënd ko fa yaakaar naa njëgg kawe na lool lool lool wuute na ak liñ ko doon jëndee fii. parfum yi boo ko xoolee di nga xam ni parfum bii ak yi ñu la daan jaay wute na waaw kon parfum la yoo xamante ni si du yomb mbooloo mi nag di jaayante di ko jënd waaw waaye yemuñu si bis bi nga xamante ni si dem na nu jébbali parfum bi sëñ bi wan ko ko muy sëñ Ndi Fall moom Cheikh Modou Mbenn mu joxaat ñu ndigal ngir ñu yóbbu ko ca baraba ba ñu demee ca baraba it teg ko ci loxol ña fa nekk muy sun ñoom sunu baay am ni mu soo am mbóoj baay ak ña fa nekk ñëpp rek. ñu teg ko seen loxo ñoom it ñu waxaat ñu li nga xam ne barabu Cheikh Ibra yëpp soxla na ko waaye nag li ci gën a nekk daar daar mooy ak mbaar moo xamante ni sii ma nga ca kanamu tiim keppaaru Cheikh Ibra ga te sëti Cheikh Ibra Fall tëdd fa waaw naaj naajoo tiim leen ñoom ñu xalaat ne fii war na daayira bi mën na faa def loola ñu wëlbatikuwaat demaat sëñ bi wutiwaat ci ndigal ngir taxawu loolu comme daayira bi yamatul kon rek ci parfum simb na yeneen liggéey yu dul parfum te seen yéene ak seen yitte mooy def barabu Cheikh Ibrahima Fall bi lépp or te gëm naa dana am ndax Cheikh waaw kilim ko def ko lépp Fall ba yaar loolu mooy liggéeyu daara ji moo tax ñu ngi ciy woo ñëpp moo waral bis yi ñuy taxawal te njëkk ci bisub tey bii ñu njëkkee ko fii ci Mbàkke ñu wax ni asan mii moom mooy jëwrinu ñu féetee diggante tuubaa ak Mbàkke ñu njëkkee ko ci Assane defee ko fii tey leen wax ne loolu dana yaatu dana dem Thiès dana dem ndakaar dana dem feneen ak feneen ak feneen te ay bis la yoo xam ne dañ cey jaayante lépp loo xamante ni si bis ba lu fa génnewaat ci liggéey bi la jëmaat ndax ñun ñuy woote bis bi kat sunu alal fekkewu ko ndax ñun ñoo woote bisub jaayante kon sunu alal waru koo fekke te sunu alal fekkewu ko sunu jotit fekkewu ko kenn ku ci nekk bàyyi nga li nga doon def lépp ñëw taxawu ba mu agsi fii comme ñu ngi ciy woon ñëpp liggéey bi gën a yaatu liggéey bi nag damaa jàpp ne man Baye Fall koo xam ne rek ab Baye Fall nga jàppal ni liggéey bi da cee war a bokk boo ci bokkagul it na nga jàpp ni fas ni dama cee war a bokk ba saa soo mënee bokk ci nga bokk ci ñu ngi daase appel daal di woon ñëpp ñu ñëw jàpp ci liggéeyul Cheikh Ibrahima Fall bii waaw ndax liggéey bi daara bii di daara jëf jël yoon wi daf koo soxla yoon wi daf koo soxla kenn ku ne xam na ne suñu sëriñ si ndigali sin jubaay rek la ñu tal kon ñun war nañu man di sàcc suñu bopp ngir jëfal leen ñoom li ñu bëgg ñoom kat mënuñoo mënuñoo xëy xëy rek bàyyi ndigalu Cheikh Ibra ndigalu suñu tubaab leen ne ci eh, seen barab maam wala loolu waaye ñun yi nga xamante ni si ay jaam-jaamaat lan mën nañoo sàcc suñu bopp ne ci liggéeyul Cheikh Ibra bi liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall ci barabam bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñu ngi ciy woo ñëpp ñu ngi tub bu baax nag leen wax ne am na groupe WhatsApp boo xamante ni si mi ngi fi képp ku ci bëgg a dugg dinañ la jox numéro yooyu ci kaw mooy numéro yee boo ci jokkoo ak borom numéro bi dina la dugal waaye ci ñeenti téeméer lañuy ñuy woo ci daara ji groupe whatsapp bi yaatu na am na boo xamante ni si mi ngi waa Nigéria ak Burkina ñooñu ñoo nga fa am na ci boo xamante ni si nag mi ngi Europe waaw yooyu yëpp am na ci kon liggéey bi mi ngi dox mi ngi dox ni mu war a doxee waaye nag dañoo bëgg mu gën a yaatu. yéene it Baay Faal yëpp ànd ko ak ñun loolu moo tax xanaa ñuy soññ sunu bopp tey soññ ñëpp rek waaye du bëri wax du dara ñu ngi tuubaat bu baax nag kàddu yi tey jéggalu bu baax euh, bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillaahi rabbil aalamiina jërëjëf sëriñ jëf jërëjëf Cheikh Ibrahima Fall di sant di leen sant di dollee santaat ba ma sun boroom maye kàttan ba mën a ñëw fekkee lu mel nii ma ci sant di leen sant bu baax nag parce que lii lu rëy la ci man ma ànd ak délégation bi nga xam ne mii defe naa duñ gan ci dëkk bi fekk fii ay taalibe cheikh yoo xam ni wóor na ma ku leen gis rek sa gol da ngay gën a sawaraat ci àdduna parce que leen liggéeyal sëñ bi rek moo leen war li ngeen di def nii ñun ñii la war te itam ku sañoon bokk ci wante ji taasu seen barke yéen itam ba li ngeen di def ñu itam ñu mën cee bokk bokk boobu mooy tey jii ngeen boole ñu ci muy am ndam nag ci ñun parce que tey jii kuy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall defe naa ni ci Mbàkke gi bu ñëwee fii kër sëñ Ngaaj vraiment ma xam ko lool nag on mu doon suma xarit di suma sëriñ di suma lépp lu nu masaan taxawal rek ci suma école bee ñëw na bokk na ci suma waa kër itam gis naa ni mu leen daan taxaw ak sumay doom ak yépp wax dëgg yàlla di leen ñaanal fu mu toll kon bu ma déggee lu mel ni ñu koy xewal ci kër gi ngeen ànd ci boole ma ci dama koy rafetlu lool xeeb lool nag li nga xam ne lii ñu ngi ko ciy def ndax li ngeen wax ni moom ngeen di def muy parfum yooyu nga xam ne danga ko war a yóbbu ca barab ba muy jóge fu nekk defe naa ni waa Mbàkke moom waruñu woon xaar ba kenn sax di ci bokk war na mën a joxe lépp ba ku ñëw doo am foo ko def lii nag defe naa ne war na yaatu parce que tey jii bul fi ñëwee nga ni léegi premier adjoint au te tey jii dëkk bi am am maire boo xam ne bii moom la yàlla jox dëkk bi ma nekk ci gannaawam mu nekk ministre xam naa ni li ma wóor te wóor booy bisu tey bii du ko manqué te dana fi ñëw wante nag mënuma ñàkk teewal itam suma bopp parce que itam dama cee bokk te bëgguma kenn ëppale mu ci may wax ni nag vraiment kontaan na trop lii daal wax dëgg yàlla buñ ko teel a ni nga ko waxee nii sax. Sénégal gépp war ko yëg parce que war na ëpp lii sax kon fi ñu toll nii danañ ci barkeelu daal wante barkeelu bu luñ ci def rek xeeb ko te gis naa ni taxawaay bi ci am yéen itam ak ñii nga xam ni ni ma leen ki gisee vraiment di leen ñaanal yéen itam ngeen yàgg fii lool ah sëñ Saliou itam ñu ngi koy ñaanal bu baax wallaay wax dëgg yàlla mooy itam sunu lépp la e wax feggoon naa xam naa mi ngi bitim réew wante xam naa ni lii itam lu mu fi nekk mën ndekk itam ci lii la nekk kon nag bis bii dañ koy bés bu rafet la bis bun fonk la te dañ ko gën a fonk itam parce que ci dëkk bi lañ dëkk xam na li muy tekki xam na ni li jëm ci cheikh sëñ Cheikh Ibra Fall lu mag la war a doon ni ngeen laxasaayoo ànd ci danañ laxasuwaay ànd ci bokkook yéen ànd ak yéen ak bis bi ba nga xam ne fi mu toll nii waa Mbàkke kenn du leen ci man maa ngi leen di sant leen gërëm di kontaan trop di leen sant di leen ñaanal ñu yàgg ko fekkee yàgg cee bokk yàkk cee participer jërëjëf. jërëjëf. wa rahmatulahi taala wa barakatu waxtu yi la. asalaamaaleykum wa rahmatulahi barakaatu hmm, ñoo ngi leen di nuyu ginnaaw bi ñu nuyoo Cheikh Mahamadul Muntaqa nga xam ne démb rekk ñoo ngi feggoo ci këram googee ñuy wax alboqaatul mubaaraka ci njaareem démb rekk ñu ngi feggoo foofu ñu koy ziar waaye buñ ci jógee itam ñu jëlaat nuyo boobu ak ziar bi teg ko ci loxoom sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda mi nga xam ne kër gi nu ñëw tey ginnaaw bi mu nekkee kër Cheikh Abdul Muntaqa këram la waaye nu nuyu itam suñu waay jur di ku baax di sëriñ Saliou mi nga xam ne barab bi itam barabam la ndax sëñ bàcc yàlla dogal na sama wóllëre la wu yàgg yàgg yàgg ndax ba ma ne jongeen xam ko rek la ma téye woon ni ma téye woon ba ni mu delloo ci boroomam ca moom ci ron sëriñ Saliou la nekkoon ñoo ñëpp bi ma leen nuyoo jox leen li ñu moom maa ngi dellusiwaat ci jataay bii di leen nuyu yéen ñii ñu feggool bàyyiwuñu kenn ku ne ci yéen li ko sunu boroom jox ci daraja na yëg na jox nañ ko ko muy góor di jigéen di wax nag ne li fi dajale tey leeral nga ko léegi ci liggéeyub maam Cheikh Ibrahima Fall moo fi dajale ci ni ko leerale muy sas wañu leen sas foofa ak jaayante bi nga xam ne moom ngeen di gëttal moom ngeen di gëttal ca xabru Cheikh Ibrahima Fall ba niki noona euh, macha allah loolu lu ñu bëgg la bu ci yàlla boole rek ñu ngi cee sant subhanahu wa euh, di wax nag ne xam naa jombul mën nañu bañ a guddal ndax ni ko wolof di faral di waxe rek lu weex tàll moom jëratul naa lu weex a ngi nii naka noonu lu ñuul itam jëratul naa lii lu ñuul la sëriñ Abdul Ahad waxoon nañu ko ku sori lañ naa ma nga ndële waaye ku agsi ba noppi dañ naa mi ngi nii barki dem rek wax naa ko ci tey njaboot yu ñu taxoon a jóg ba ñëwoon ci kër sëriñ Saalihu Fall wax naa leen na ba géew ba tasagul tasug saayir mooy bi fi Cheikhul Xadim nekkee ña fekke woon kenn ci jógoon joxar bi Cheikh Ibra Cheikh Ibra newu ko bankal sa baaraam cheikhul xadim néewu ko noppil kon ñu jàpp ne lam doon wax jombul waxu na kooku num tudd abdul karim cheikh sàmba jaara mbay bërki dem rek maa ngi leen koy wax kër sëñ saaliw moo koy xool ba si yàgg mu ne cheikh ibra moom raw na ay maasam te deefu ko jot mbàmbaa ko seppi mu raw yaaram bi naam faala ina suyooxa wa asxaabu suyooxi maan ñoo di jaraaf nga di seef yaaram bi naam faal raw na ay maasam te deefu ko jot wolof la yoo xam ne jërul firi beneen lim ci tegaat muy ñaareelu woy wi ina cheikh wa asaabu cheikh maan sëriñ sa ak seen àndandoo nee na ko ñoo di jaraaf nga di chef jaraaf ci jamono jooju chef de village la ñuy tudde jaraaf chef darajaam mi ngi tàmbalee ci sous préfet préfet gouverneur di yéeg ñooñu lañ doon wax seef mu ne ko kon ñi nga dajal nii nga demee ak ñoom sëñ Abdul Karim Sàmba Jaara Mbay moo wax daldi waxaat ne fa baabu baytika yow Cheikh sa buntu kër gi maftuuxun li xaasidi yi tëjaloo ko kenn ki jub ki jóg wutal ci kër gi day fekk ñu tijji ko waaye bu duggee ci kër gi lan la fay fekk may yaa di saafonte ak moom yaaram bi naam faal ne ko danga amoon ay bokk ñu leen di tudde ay ceddoo tey jii nag awlaadu garmi abidun inda baytika saa ñooy daw di raam ba fi yow yaram bi naam fàll sa bokki cedda ya nga bàyyi woon ginnaaw yamoon ak ñoom garaat bi nga ñëwagut tey ñooy daw di raam ba fi yow te bu ñëwee ay jaam la ñuy soppaliku ci sa buntu kër loolu nag as cof la ci Cheikh Ibrahima tey jii rek yàlla xam na ne bi may wax ak sama kilifa di ko wax ne dafa am bis bu ñu taxawal Cheikh Ibrahima te ma bokk ca ñañ ca tudd ndeysaan muy sëriñ Modum sëriñ Abdul Wadud mu wax lu am maanaa ma ne ko nag man Cheikh Ibrahima xawma ko waaye li ma gën a yitteel ci moom daal bokk na ci ni mu def Cheikhul Xadim loolu laa ko wax ndax koo xam ne tey eh, ni mu defoon sëriñ bi teggin mayewul ñu di ko waxtaane ci ñetti nit teggin mayewu ko te réseaux sociaux yi dañu xaw a doy léegi waaye daal fonkoon na ko fonkeel koo xam ne bu mosaa ñëw ci moom jëmm moo koy déglu li sëriñ bi wax ak li muy def ndax bu ñëwee dootu dégg dootu gis dafay jóge rek laaj sëñ Yaaram Mbay mu nettali ko li sëriñ bi waxoon dimension bi nag gën naa xóot loolu waaye loolu mënee su ko wax ci mbooloo nuyu ñi fi fekk ñëpp ku ci nekk ak ci sa tur ak ci sa sant di nuyu si délégation bi ñu àndal dañuy bañ a lim parce que bu ñu limee dañuy juum di nuyu aussi ñoom acca ñi nga xam ne ñoo mujjee ñëw mais li nga wax rek lépp benn la ñun ñëpp bu ñu rootee ñoo bokk fu ñuy sottee te Marème Sall yabal leen te xam naa ne moo bëggoon teewal boppam sax mais dafa am ngànt yéen aussi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm parce que yëfi sëñ Touba ku la ci woo yaakaar naa ne kooku mu ngi lay woo si lu baax parce que lépp luñ mën di nekk rek lii mooy mujj kon bu ngeen ñu woowee ci li nga xamante ni ci la ñuy mujj dañ leen ci sant bu baax remercier leen ci bu baax a baax tey ñaanal aussi sëñ bàcc yàlla na yàlla yokk ay leeram ñuy wax ñun ñëpp nañ àndandoo ne sëriñ bàcc borom ngàcc yàlla na yàlla yokk ay leeram ndax man kër gi yaakaar naa ne duma fi gan ñi nga xamante ni nekkoon nañ fi bu yàgg yaakaar naa wañ war nañ ma xàmmee ndax kële toog sama tante la jaal jóob male moom sama yaay ñoo bokk baay yàgg naa ñëw di ko fekk ci ëtt bi di toog ak sëñ bàcc si mbaar mii saal bale toog naa fa añandoog fa ak sëñ bàcc ba tàyyi parce que su ma fi ñëwee du nangu ma toog ci beneen bool bu dul boolam man damay wax ne am naa ci sëñ bàcc li nga xamante ni tey am nañu nekkoon ci biir kër gi te amuñu ko dafa nekk nag ne du lépp lañ mën a wax kàdd gi nekkoon fii sëñ bàcc dagg na ci def ci sama oto dawal oto bi def tuur ñëw delloo ma oto bi li gën a jafe ci nit mooy bind téere jox la man mën naa ne xanaa man rek maa ko am ci moom te defal na ma ko ci ëttam bii lëng ma ne ma yaay sama gaayen dara du la dal ba sama boroom kër bi nga xamante ni moo ma booleeg sëñ bàcc tax ma xam sëñ bàcc damaa ñëw ne ko gañe naa la mu ne maa ma ne ko parce que sëñ bàcc mosulaa lëng taxaw na la yaay sama copain te sëñ Bathie defal na ma ko fii kon man fii bu ngeen ma fi wowutoon sax ma dégg lii damay ñëw ndax kenn gënu ma fee bokk sama tante ji ci biir kër gi la yaroo moom mii te mook sama yaay bokk baay mook sama yaay seeni baay bokk ndey ak baay kon man fii laa bokk woo ngeen ma ci li nga xamante ni sawar naa ci lool te kontaan naa ci lool kon nag awma seen fay dama leen di sant di leen gërëm te di leen wax ne bis lii yemul fii heure bu ngeen koy defati ñun ñoo ngi si biir parce que mbirum sëñ Touba la tey am nañu ci bëgg a bokk te yàlla boolewu leen ci kon ñun bu ñu yàlla boolee ci Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra Fall dañoo war a sant yàlla bu baax doole ca lañ santoon ñuy wax ne kontaan nañ di yàlla na dem ba romb fii yàlla na dem ba buñ koy def du xaj fii sax ñu di ko defee feneen ci barke Seydina Mohamed ci barke Serigne Touba ci barke maam Cheikh sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di wax daal dañoo kontaan sax ba xamuñu lu ñuy wax te asamaan bi neexul ñu gàttal pour ñeneen ñi nga xamante ni war nañ ci sànn ay kàddu mais man moom fii fii laa dëkk man waaw jërëjëf naar Marème Sall moo waroon a teew mais dafa am tuuti teq tekk moo tax ñëwul mu ñu ñëw mu yabal ñu dañu dem leen ngeen teewal ma mais teew bi tamit réccuwuñ ko kontaan nañ ci torop ndax biñ ñëwee fekk nañ fi liñ fi war a fekk gis nañ fi liñ fi war a gis ndax wut yàlla moom aajewul mbooloo mu bari aajewul mbumbaay aajewul mbumbaay lan la laaj laaj kuy wut yàlla kenn ku ci ne da ngay wéetal sa bopp wéetal yàlla kon nag liñ fi fekk doy nañu te ñun dañoo nekk ay naar donte ay naar lañ mais taalibe cheikhul xadim lañ te dañoo bëgg it cheikh Ibra kon buñ ñëwee toog ci jotaayu cheikh Ibra wax dëgg yàlla suñu xol day seet guy ñu ñëw tamit teewal fi ci jara teewal muy mareem teewal fi tamit ci wàll ci côté galo ndax tamit lii yëpp galo moo ko indi su fekkutoon du galo amaana xëy na lii yëpp du am kon nag ciy sant yàlla bu baax di rafet lu jotaay bi bu baax di kon wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalib bi fi teew yépp ñi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu boroom yàggal ko fi lool te dolli wéram ba li mu yéene liggéey Sëriñ Tuubaa mu defee ko ni mu ko bëggee ak njaboot ak Sëriñ Tuubaa waaye di siyaare jàmbaaram ja nga xam ni moo toog jataayu Cheikh Ibrahima Fall de Serigne Amdi Muudu Mbenda te liggéeyu Cheikh Ibrahima Fall bi ku ne gis lu kawe njort lu mu ci def di ko ñaanal suñu borom yal na yàgg te am ci ngërëmal Sidi Ibrahima Fall ci barke Cheikhul Khadim di siyaare bu baax kilifa yi nga xam ni teew nañ ci jataay bi wala ñu teewoon ci jataay bi ak ñi fi nekk sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare li muy njëkk a def nag di jéggalu bu baax a baax jataay bi ak yax gi mu mel ni aman ay ngànt yoo xam ni fële ca keere rek moo waral lan yéex a ñëw gi waaye mi ngi koy tuub di ko jéggalu bu baax a baax ndax kenn waru ko fee na jiitu te moo fi war na mujj ndax la ko waral muy cofeel gi nga xam ne am ngeen ko ci jëmmam ba tax ngeen jox ko cër bii ci bis bi te muy lu kawe njortam du lu mu bëgg lu xolam sedd ndax bis boo xam ni ñu koy wooteel Babil Mouridina seen xel deg ko ci nee na loolu amul seen fay waaye sëñ Tuubaa mi tax ngeen koy def ak seex Ibrahima Fall yàlla na leen fay lu kawe njort nee na it mi ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax a baax moo tax mu ànd ak rakkam sëriñ Xaadim ak jëwriñ yi nga xam ni di sëñ Abdoulahi di jànkatub kër gi ànd ak ñoom ndax amal na yéene bu baax a baax ànd ak mbooloo mu bari ndax loolu la namoon waaye ku ne xam ne xat-xate jamono ak ni mu demee looloo tax ñu bari mënuñoo teew waaye nee na daal yëg na ko ci xolam li am solo mooy yëg gi te suñ borom dogal na ko yég na ko ci xolam yëg na ko ci jëmmam yëg na ko ci seen diggante ak ñoom ak yéen kon ne leen ci sëriñ tubaa Faye ak Cheikh Ibrahima Fall ndax liggéey bii ngeen di liggéeyal Cheikh Ibra ngeen boole ko ci daal nee na lu kawe njortam la lool nee na lu dolli pas-pasam la lu dolli yaakaaram it ci Serigne Touba la ndax lu ñuy jëfal Cheikh Ibra buñ la ca boole rek sa diggante ak Serigne Touba di nga ci dolli yaakaar bu baax ndax ku mën a doon ak ku la mën a jur mbir mooy def jaar ko ci Cheikh Ibra fa mbir ma gën a gaawe fépp baax na waaye ci Seex Ibra nag la gën a gaawe ndax digganteem ak sëriñ bi ku ne xam na ko kon nee na loolu dolli na ci yaakaaram bu baax te di leen ñaanal ci doole sëñ Tuubaa ci doole sëriñ Maxtaar Mbay Kéré maamam suñ borom guddal seenu fan te wéral leen ndax nee na gis na it jàpp gi ci diggante Cheikh Ibrahima Fall ak sëriñ Maxtaar ba loolu ngeen di xeeñtu di ko dabu ci jëmmam nee na loolu xam na ko jàpp na ko waaye nee na jëmm yooyu nga xam ne ñu àndoon ak sëñ Tuubaa di ko liggéeyal ba am liñ am gis nañ lépp te ñooñu dàq fa yal na leen fayal boppam ci ba ci doole Cheikh Ibrahima Fall kàddu yi nag rëyén na lool waaye sëriñ bi daal tolluwaayam ak mbégteem moom xam na ko bu baax a baax a baax te jàpp na ko it te nee na incha allah du yem fii te mi ngi leen di ñaan lépp lu ngeen nekk rek na ko yëg mu ànd ko ak ndax liggéeyal sëñ Tuubaa rek a fi des rawate na nga jaar ko ci Cheikh Ibrahima Fall ndax loolu nee na liggéey bu kawe la bu yàllay nangu la bu sëñ tubaa ni nangul boppam tax lu jóge ci sëñ tubaa ak ci Seex Ibra jëm ci sëñ tubaa amul lu ci taxaw amul fu muy xaar amul lu muy néggandiku lépp sëñ tubaa da koy nangul boppam ndax jëmm yooye ku ne xam na seen diggante kon noonu loole xam na ko te jàpp na ko lu ngeen ne rek nee na ngeen yégal ko ko mu ànd ko yéen ndax xam na ne lii moom kenn deful lu ko gën a kawe muy liggéey bii kon ne leen leen taxaw ci doole Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi jéggalu bu baax kàddu yi jërëjëf auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim naqulu ba'da al-ibtidaa bil basmala walhamdu wassalaati summa al-awqala xam naa ñu ñu ngi nuyu ñëpp te di ziyaare bu baax doole ci suñu kilifa gi ñu fekk sëñ Abdou Sakho te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér buñ ko nuyoo nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañuy seqal jataay bi suñu rakk yu baax yi sëñ Moustapha sëñ Assane te xam ne fii ñu nekk ñun ñooy fo ñooy nekk kon ñun lañ fi nekkal fan demoon ñoom lañ fa demaloon ndax foofu it ñoo faral ne day mel ne kon sotti ceeg def ci rek la euh, yàlla daa dogal appel ma doon jël nii léegi te dañoo xëyoon doon liggéey corniche bi. ma waroon am émission ni directement Touba moo tax muy njëkkante waxtu wi euh, li ma doon leen mooy fekk ko ca suba ba waxtu wi ànd ko yéen waaye loolu it ginnaaw ndigalul sëriñ bi la woon dàqonte wut ak lii waaye ñu ngi nuyu ñëpp te di siyaare te di leen jaajëfal ci jataay bu am solo bi wuy si woote day mën naa bari waaye nag bu mel ne bii mën naa tumuranke ndax delluwaay bee tax defe naa ne ginnaaw dañu ko yëkkati sëriñ bi tax sëriñ bi tax mu tax nag moo koy tax am solo ku ne xam na ne bi ma xoolee jataay bi seen mel ne ay jigéen a fi ëpp loolu moo dalal sama xel ci liggéey bi ndax ba lislaam sosoo ba tey jigéen ñi mësuñoo des ginnaaw seen taxawaay bu ñu war a am wa man yaamal min saalihatin min shakarin aw unsa wa huwa muminun fa ulaika yadxuluna aljannata wala yuslamuna naqiran loolu mooy lu baax góor a jigéen ñoo ci yam dayoo ku def lu baax ñeelul kenn ku dul sa bopp te lu ca waay def mu néew mu bari suñ borom dina jigéen la kon naa ko fay tuuti waaye dalay fay lu toll ne la nga jëf wala mu fay la si yéen te loolu mën naa ëppanteeg la nga jëf looloo tax nag ñu jàpp ne liggéey bii nga xam ne dañ koy liggéey Cheikh Ibra Fall te euh, liggéey Sëñ Tuubaa sax laay wax te di ko jaar la ci buntu kër Cheikh Ibrahima Fall te suñu rakk suñu wëndëre suñu lépp maam làmp moom de dafa mel ne taxawaayam mooy nii suñ borom di sante ak jullit bu la julli xasee war dootu la wàcc waaye ku ne xam na ne ab Baay Faal bu xasee ba na ci ba soobu yoonu maamam di ko liggéeyal du wàcc ndax bu fekkoon wàcc war naa am moom am na ngàntul wàcc waaye tey la pas-pasam gën a dëgër tey la yéeneem gën a rafet tey la xolam gën a nangu ndax ku nekk à distance di manu di veyu ki di ne lii loolu li muy tekki mooy euh, sa pas-pas rëy na ndokk nag ba ñu xamee moom xam ko lu jiitu tey euh, xam ne rek maamam doo nga ko ñoom ak lu mu ko mën di fekkee rek lu mu ko man di booleel it yitteem jëpp mooy liggéeyal maamam kon nag yàlla na ko suñu borom doolee taxawu te dafa ko ndam ci liggéey bi te lépp sotte sotte ci ay loxoom te ñu ànd ko moom xam naa ne bëgguma woon a gën a guddal waaye ñu ngi jaajëfal tam kuréel bi nga xam ne tam ñoo nekk fii door ci si asab bi nga xam ne ràññee nañ ko ci jëwri nii moom it mu amee taxawaay bu mat sëkk ci soññee waaye tam ne ca kanam bañ a yem rek ci di wax waaye nag ànd ak ñëpp jëf ji ñu yàggul dara gis nañ muy jébbale ay jëf yu solo ci kilifa yi nga xam ne ñooy njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi liggéey nag yaakaar naa ne bu sottee te dellu ci delluwaay ba mu war a delloo na si ci rafet njort kon képp koo xam ne ñu la cay woo yaakaar naa dana caa bëgg a dimbalee ndax si jataay bi ay jëf ñun jébbalee ko jiitu kon nag loolu wane na ne yéen ay lantinoor ngeen rek yuy jàllale kon ku yàlla dimbalee nga am taw feexul mën a tabi ci liggéey bi salaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Cheikh ma ñaan wa ñii dañoo bëgg ma ñaanal wasbil ayna shu'batan wa antal ana rafiqin wa min yàlla suñu borom boole dimbalee dafa na mujj gu rafet gu ak paju aajo may ñu ndam barki maam Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh dañuy jaayante lu waayam rek maanaam sa suñu ci kenn dara waaye dafa am numéro bi mooy numéro bee am orange money lu waay am rek da ciy jaayante ak fu waay mën a nekk moo xam nga bokk ci groupe bi moo xam bokkoo ci groupe bi yaakaar naa yaatu na loolu ci internet bi nit ñi gis nañu ko. weer wu dee wu it la cinq ba le dix lu waayam day jaayante sasuñu kenn dara noonu la daara ji di doxe ñuy fàttaliwaat bu baax ni logo bi mi ngi nee numéro yi mi ngi nee kenn ku ci nekk mën nga koo enregistré sa téléphone di xam ni jëfal Cheikh Ibra ñaar fukk sax bu ko xeet waaw numéro bi mi ngi ne le ñu ngi sàkku ci mbokki taalibe yëpp na ko kenn ku nekk jaayante jël jël numéro bi enregistré ko talaata ju nekk boo yëgee Cheikh Ibra Fall rek nga jël sa àddee tàbbal ko ci loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñaan mbooloo mi yëpp rek képp ku fi teew maanaam xeebuñu ñaar fukk ñaar fukk ba million sunu numéro yi xeebuñu ko ci te ku ci def sab ñaar fukk boo ëllëgee di nga fay ko ba xam ne ñaar fukk yooyu dana doon ca yow ay milliards ndax ki ngeen ki koy defal muy Cheikh Ibra li sëñ daam mi wax léegi rek ñi mewul bor dafa amu pay Cheikh Ibra ku ko jëfal ku nekk dana la fay waaw te fañ koy defit fa la war a dem muy barabu maam Cheikh Ibrahima kon numéro bi mi ngi noonu maa ngi sàkku daal na ko ñëpp jaayante salaamaaleykum maa ngi jéggu ci mel ni sëñ Mor na fi ci mel ni sëriñ Moustapha Mbacke jaar na fi ak sunu soxna yu baax yooyu nga xam ne tamit dañ leen a duppee bis bi jaar nan nu fi waaye nag mu mel ni ñu ngi feggoog sëñ Abdou Sakkoor di suñu kilifa te bokkook ñun liggéey bi muy daayira jëf jël ànd liggéeyal maam Cheikh Ibra ci parfum yi nga xam ne ñoo jëm ci barabu maam Cheikh Ibra da di nit ku ñu la xaw a jafee tënk ceeb heure waaye heure bi bëggun woon mu génn ko wax dëgg yàlla fi leen bëggoon mu yem fi ay comme que dem na ba yegg fii te suñ moor suñ mbay kayre mi ngi woote léegi ni mi ngi ñëw bu ñëwee xam naa danañ ko dalal noonu waaye dañoo bëggoon euh, jox suñ maam lool mi nga xam ni suñu kàddu ci liggéey bi mu mën a leeral liggéey bi ni mu demee ñi am yéene te bëgg cee bokk wala ñi nga xam ni yéene nañoo jëf ci liggéey bi sax buñ ci mënta bokk ci biir dina am solo lool ngir mu mën koo yaatal buñ noppee dañoo bëgg sàmm bi tëj ko rek ñu wàcc ndax suñu Ibrahima mais dafa am lu ma ko waxoon ñu ko heure sàngam bi kat bu soobee suñu borom du ko wees kon mel na ni buñ defee li ñu bëgg a def. ñu bëgg xam naa saam bi ñëw daal koy tëj rek ñu daal fay jaare ndax saam bi tamit ndeysaan am na heure bu ñu leen joxoon waaye nit tamit dina am yéene heure ba nga ko wax waaye ku ne xam ne yittey jamono ji surtout liggéey bi nga xam ne dañ caa jëm muy suba di jëmbat ji ko ci mel ni ñoom Baye Fall am mel na ni ñu ngi woon ci ay métiers yu mel ni yooyu te teewul Baye Fall Thiam ñu ne moomu bokk liggéey bi ñu ne kon xanaa ñu jox suñ Xaadim Mbaye mu ubbil suñ maamloo ci ay xasida bu noppee sëñ maam loo mën a yëkkati kàddu yi ñu jox sàmbi sàmbi tëj ko ñu daal fay jaaree ñaan bu ko defee waajal bis bi nga xam ni ma nga daal di jëm ca fële ñuy wax cees te sëñ maam loo mii ndeysaan war koo aaye ndax noonu rek lay demee bu fa jógee war naa dem ca ndakaaru soxna sëy naa euh, dara war lu ko nag muy muy jëf rek jëf dong lañ ci saako waaye du lenn euh, nit ñu bëreek néew lañ ci xamale liñ ci yittewoo rek mooy jëf te luñ ci jëf lu ne rek Euh, ñu ngi koy delluwaat ci liggéey bu maam Cheikh Ibra bi kon loolu rek mooy yitte ji di siyaare suñu am defaal mi nga xam ni suñu kilifa moom suñu Abdourahim ne nii ci sama ginnaaw ñu ngi koy siyaare te di ko jaajëfal di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax ak mbokk taalib yi nga xam ne ñoo bokk àndoon liggéey bi suñu Ibrahima si lu lu ma fi teel teel ñëw moo fi jiitu ku ci mel ni suñu Abdou Mbaye mais lu fi teel ñëw moo fi jiitu suñu Ibrahima ma la nga xam ni mooy borom rajo yi maa ngi koy jaajëfal ndax su ma yittoo matériel dama naan ko rek ñëwal barke Cheikh bi Fall la mu bàyyi lépp ñëw kon nag loolu day lu rëy ci moom ñaan suñu borom yokk ak suñ maamun mi nga xam ne moo ne ci wàllu caméra bi nga xam ni liggéey bi tey jii moom lañ fi teg ngir mu mën na koo yaatalal ba mën na koo dugalal ci site boobu ñuy wax suma jumut al al salaam barke maam Cheikh kon ñëpp rek daal koy xaar kon ñu jox suñu xaaj.